ok salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi seetoo seetaan Click Dakar 221 Dakar Midi yaakaar naa tey nag jëmm ji ñu jàkkaarloo suñu yaay la min ngeen kàddu yi ak suñu yaay soxna Aida Saliou la grande voyante ku ne xam na ko ci réew mi ak bitim réew waaye nag tey ñu jàkkaarloo moom war waxtaan ak moom gis nañ barke dem li fi xew yaakaar naa suñu yaay chaque jour mu génn def sorti waaye nag ku baax ko xam ne macha allah message am ah dafa baax ci réew mi dafa baax bitim réew parce que boo waxee rek ñëpp te est-ce loolu dafa jafe ci àdduna muy suñu yaay waaye barki démb nag mu am lu am muy gàmm boo xam ne ah xew na fële ca almadi ah cité mbakkiyu fay suñu yaay ju baax di ko def muy soxna ngoy faal bu ñu soxna ngoy faal ñëpp xool yëpp dem ci borom or yi waaye nag macha allah teraanga da nga koy wone mu doon def gàmmo invité ñëpp nag waaye nag mu invité ko xam ne ah ku jëre invité muy suñu yaay yaayu réew mi yaayu àdduna waaye nag yaayu Wally Ballago Seck muy soxna Aïda Saliou tey nag ñu war a waxtaan moom ci gàmmo ngoy faal gi mu dugg see ni baat ak diggante moom Ngoye Fall yaay booy nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum àdduna maa ngi ziar ñëpp di ñaan ci yàlla yàlla ñu defal jàmm ginnaaw mu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sama sang ñi ñaanal sama sëriñ sama bunt ci sëriñ Touba. di sëriñ Mountakha Bassirou di ko ñaanal Mbàkke ay gi neex na ñaanal sëriñ Saliou yal na yàlla yokk ay leeram njabootam gi yàlla seen fan yu mel ni mu toj foo tiijaan nekk xaatir laayam soxnaay de soxnaay de àdduna la. maa ngi ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di wax soppe yi xarit yi ndax man ñëpp ma bëgg oo ma noonu noonu rek la demee. noonu la demee macha allah yaay booy sa digganteeg soxna Ngoy Fall soxna Ngoy Fall mu Serigne Saliou soxna Aïda Saliou mu Serigne Saliou tey seen diggante seen lien ba tax nga déplacé yaakaar naa sa génn yombul waaye keroog nga bàyyi lépp dox guddi gi ñaaj dem almadi ca gàmm ko lan moo waral sa damay faral di di génn sax nag. Mhm. di dem ci programme yeeg yëpp damay mhm. dem. Mhm. parce que jigéen laa yaay laa te nit ñi fépp foo xam ne. jigéen daf fay dajaloo. mu doon jigéen. jigéen ñoo xam ne ci valeur. waaye nag euh, génn boobu dafa ala doomi ci génn. parce que bool ne Ngoye Fall. ni Asiya Touré. Asiya Touré Asiya moom Serigne waaw ba ne Asiya moom Serigne kóllëre gi may booleeg ñooñu Serigne Saliou moo ma booleeg ñoom. ndax man euh, Serigne Saliou laa bëgg. Serigne Saliou laay dund. Serigne Saliou moo nekk ci sama xol. sama samay bët sama lépp. Serigne Saliou la ginnaaw yàlla yonent bi Serigne Saliou laa bëgg. Mhm. bi ma bi nag mu def ma ab melokaan. melokaan woo xam ne tey damaa bëgg di xeeñtu ñooñu Serigne Saliou. produit Serigne Saliou. Mhm. fu mu nekk dama leen xeeñtu. waaye ñoom dañ maa xeeñtu si <laughs> loolu mooy Serigne Saliou Serigne Saliou ay ñoñom dañuy xeeñtoonte mm-hmm. man na képp koo xam ne ci àdduna dinañ la tudd di tudd Serigne Saliou mm-hmm. man Soxna Aïda Saliou mm-hmm. personnellement danaa la danaa la danaa la soo ma woowee danaa la wuy si soo ma woowee danaa la wuy si te su ma la wuysee di nga xam ne sa mbokkum taalibe wuy si ci la su may dem di la wuy ci Serigne mm-hmm. Saliou kese ne ci man su may dem Serigne Saliou kese lay ànd mm-hmm. su may wàññeeku waat Serigne Saliou rek lay àndal su ma nekkee ci biir yëf yi Serigne Saliou mm-hmm. sama yëg Asiya moom Serigne Saliou Ngoy moom Serigne Saliou Soxna Aïda moom Serigne Saliou lépp Serigne Saliou nga seeti Ngoy ci gàmmu gi waaw ànd ko dund ko dund Serigne Saliou li Serigne Saliou soxla produit wu Serigne il faut que sénégalais yi xam ne bu dee laa ren ak ku mu mënti doon mm-hmm. ñooñu Serigne Saliou yi dañ leen ciy ràññee mm-hmm. bu dee bernde bi mm-hmm. ñooñu Serigne Saliou yi dañ leen ràññee ci bernde waaye ci sañse sañse ak bernde foofu la ñuy wax waaye ci taar cam cam ñun lu yàlla defal ndeysaan yore daal na sama murit murit dafa am benn air air bi mooy ci sañse air bi mooy ci sourire. Mhm. waaye air bi mooy ci berne. ci berne. murit mhm. bu tëggee day neex. keneen ku dul murit bu tëggee day neex. Mhm. mais kenn ku nekk ku ayewal sa moom. pour man damay bañ samay wax di lëmbaajem xel. bëgg su ma waxee. borom nopp garmi yi xeli garmi yi di ma bàyyi xel. ndax man na rafet rek laay def. moo tax lu rafet rek laay jëf. damay bëgg lu ma def mu rafet. waaye lu sama def defit ma rafetal ko ba mu rafet manoo mm-hmm. ma xoolu xool lu lu lu ñaaw daal ndax man du ma xool lu ñaaw te mm-hmm. du gis lu ñaaw te du ma dem ci lu ñaaw du ma dem ci lu rafetul mm-hmm. wooteb Serigne Saliou nag ku ma ci woo yaa jël sa yotaa kontaan naa guddi gi neex na waaye ma gën ci am cofeel mooy dama damay def ay vidéo nit def na vidéo ba sénégalais seetaan la jéppi la mhm. te natt sa bopp ci liggéey ci média bokk na tey ngay wax ci média ñu lay dékk micro ngay wax tout le temps lu xew ci réew mi ñu dékk la laaj mhm, kon day wane boo demee ci mbooloo dangay xool tool ñoo askan wi ndax man askan wi rek laay liggéeyal mhm. su ma demoon tey ci mbooloo ma gis ñëpp téye seen kanam amaana sama ñëw bëgguñu ci damay xam damaa liggéey lu leen soof mais gën naa cee am ak soññe ci ñëw bi ma ñëw ci ci Ngoye ga gis sénégalais yi niñ ma accueillir gis sénégalais yi niñ ma bëggee gis sénégalais cofeel bi mm-hmm. ñii di jooy mm-hmm. ay mag barke sëriñ Saali ay mag dañ doon jooy mm-hmm. yaay booy looy jooy ñu ni ma vidéo yi ngay def ñu koy seetaan dafa am fu ñuy yóbbu surtout maag vidéo bi nga def ci yaay def ko ci yeneen ak yeneen ak yeneen vidéo bu ma def rek nit ñi rafetlu nañ ko dañ may nettali ba def vidéo yoo xam ne fàtte woon naa loolu cof loolu bëgg la loolu war a defaat jàngat man maa dese maa war a defaraat sama toogaay gën a dolli gën a niitaal gën a xàmme gën a ràññi nañ ma ñaanal a gudd fan. Mm-hmm. loolu rek laay ñaan mm-hmm. te yàlla gën a yokk sama bëgg seen saali. Mm-hmm. ndax man gis naa yeneen tëb yi. kontaan naa ci sama dund. waaye nañ ma ñaanal. dékk naa ñëpp samay loxo. mais yaa booy nga dugg si baat bi après ngoy faal ñu gis mu dugg si sañse yi yaakaar naa bari na mais ak or yi euh, Sénégal. ku nekk ngi génn après lendemain bi di wax ñiy wax négatif ñiy wax positif ñii sànni ko xeer ñiy wax ko lu nekk bon lii puukraay la lii lu gàmmoo lii nangam nangam mbeeraay la en tant que yow Serigne Saliou lan ngay wax ci loolu ñu koy. ñaan loolu man man ngoy la mu def taalibe Serigne Saliou boo xam ne soxna Aïda xam na bu la nawee ci bëgg gi mu la bëgg ngir Serigne Saliou ba pare. Mhm. man boo sañsewul dootuma la bëgg. cum ay si njëkk boo takkul ngalam man dootuma la bëgg waaw ah, waaw boo takkul or ngalam ngooy bis bu wàññee or yi man mu nga bàyyi ko wàññee bernde bi daf mhm. mhm. na ah, a yokku Asia moo est-ce ko loolu mu def ci yaramam mhm. su ma yàlla mayoon ndax ma damaa jikko boo xam ne lépp lu sama morom def te sama doole yeggu ca man dama lay ñaanal yow ñu ko mën ba di ko def dama lay ñaanal nga am ci jàmm am ci tawféex am ci bonne continuation mm-hmm. continuation lañ koy wax mm-hmm. am ci mm-hmm. continuation man it may ñaan bis bu ma ko amee dinaa def lu turi bon loolu ginnaaw bu beer ndey pare ndax man tey lu may def doole ji nekk ku fa waaye yéene ji ak xol bi mi ngi fi man man jaay naa sama oto def ko ci social dëgg la jaay naa sama alal def ko ci ay jaay naa samay or jëndee ji ko ay nag yóbbul ko Serigne. Serigne def ko ci liggéey Serigne Touba. Mhm. liggéey Serigne Touba nag boo ca defee addiya. Mhm. def ca la la war. Mhm. boo paree da nga jóg ci sa yaram. cum sañse. da ngay sañse waaw da ngay sañse. dëgg la. da ngay sañse. alal. alal. Euh, alal bu dee yàlla daf la dénk teraanga. da ngay sañse. da ngay sañse. nag boo nee cantaakul. waaw ne taalibi Serigne Sall. dëgg la. parfum bu cher. waaw waaw. yére bu ah, cher. dara bu cher. saag bu cher. ngalam bu cher. Mm-hmm. bu dee góor ñi jasneeri day niin bot. ñu ngi bot daamine bi dàq daamine leen daamineel parfum vert lonet kase sañse loolu nag suñu sang bi mbàkkee. Mm-hmm. ah mu ñaar mooy su ma waree génn jàkkaarloog samay nawle. ah mm-hmm. Sénégal léegi nañ xam ne tey suñu roi des arènes bi. king de vaillante mooy. king de vaillante mooy sañse dafa bokk ci nag gëm Serigne Saliou dëgg dëgg waree génn. sa nataal ku ko xool xam ne taal bi Serigne Sall dëggal gi kon daal ngoy daal or ma ko ma yàlla may ma jëm ak mhm. mhm. def ngalam ah, mhm. ah. ab sa giroo ab sa giroo ab sa giróo ab sa giróo sama xarit moom mi ma sol keroog ngoy faal ab sa giróo ma ko jox ab sa giróo ndeysaan saag bi ma yor keroog moo ma ko jox wallaay ñu ñu sëriñ Sall moom moom moom it moom it ndeysaan noonu la koy defee mhm. waaw taalibi sëñ Bamba yi daal man daal taalibi sëñ Bamba yi daal nii ñu mel ci ngalam daal mhm. man neex na ma nag mhm. man daal bëgg naa man daal ngoy lam def man daal bëgg naa loolu kontaan nga ci man daal kontaan naa ci yàlla na dund tëbër te bu demee ne ngalam gi gën a yor Asia gën a gudd fan Asia waaw ku baax ko jàppale ndax góor président Macky bu nekk war ngaa jàppale sa jigéen mhm. waaye jigéen ju ne mhm. war ngaa jàpp sa borom kër li mooy liggéey li góor bu kontaanee ci yow mhm. te yàlla may ko ko dooleem toog ak bu bëgg sa jabar rek ñaan nga yàlla bu salee nga toog ak say ñoñ nga bëgg Asia nag nii mu def ngoy neex na ma jàppale na ko de ku baax Asia na ko de baax kuy jaay karoot mhm. bu sa jabar ayee mhm. ceebam ku ko xam-xam ne kii saf na karoot ah, kuy jaay ceeb bu sa jabar ayee ñu xam ne parfumé la toog mhm. kuy jaay diwlin bu sa jabar ayee ñu xam ne ceeb bi saf na diwtiir kuy jaay tiir bu sa jabar sebooyee ñoo xam ne saf na tiir waaye nag kuy liggéey di am koppar defar kër ba mu rafet xoolal waali xool ni mu def soxna dara. laay dëgg la eh. waaw am jabar da koy def. foofu mu ñaax ci waal yi. am eh, indi mais xool ko mais xool Baye Fall bi mu sëñ si. wallaahi ko yàlla fal ca. waaye sa moo ko wayoon. sañ sa bàkk la sañ sa bàkk la. Uh-huh. yaram a koy dégg sama doom jee ko wax. <laughs> dëgg la sañ sa bàkk la yaram a koy dégg. Ah, yàgg. Uh-huh. dama naan damay génn tegal leen ma sama wayu doom ji mu tegal ma sañ sa bàkk la ma sañ uh-huh. ah Maya Sène mënu ma wax ba mu jeex. cëm ndax loolu wax li waay di wax ci lu rafet. boo ne jàkk sama doom ci mu am ci parole yàlla ko yàlla fa ca sàmm ko. yaa ngi ñu benn ak beneen actualité muy diggante yaakaar naa li nga xam ne mooy combat Papa Sow ak Siteu ah dimanche la. waaw mun na doon sax suba. mais li may ñaan. mooy non violence. na mu bëri ci dal dem ci dal la amoon. bañ a amaat. nga waaw xam nga nekkoon nañ fi pré-combat bi mhm. moom xaañ foofu ah, rafetul mhm. xamul tax tey làmb jooja jeex na mhm. ñoo àndaat li fi xewaat kenn ku ne gis na ko ay mbokk lanu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii dafa nekk loo xam ne suñu rythme sénégalais la ñuy traditionnelu Sénégal muy bëri ak làmb comme bu ñu ko defee waxuñu ko ñu def ko muy noonoonte waxuñu ko ñu muy def muy ŋàññante mais nanu ko def ak discipline nit ñi reyee mu neex mu bëri ci jàmm ñibbi ci jàmm mhm. day doon mbégte man seen yaay soxna Aïda Saliou mhm. maa ngi ñaan ngeen bëri non violence mhm. supporters yi nañoo moom combat bi képp kuy dem ci làmb ja waa Papa Sow nañu génn ku ne juróom-ñaari mbuusu soow waa Sita nañu génn ku ne juróom-ñaari mbuusu ndox man seen yaay maa leen ko wax na ko ñëpp def ngeen bëri ko ci jàmm léegi ndox ak soow kan nga la ndam li ndox ak soow non ndam nee naa leen damaa paase man yaay man yaay Sénégal fu may waxee di way daan Papa Sow sama doom la mhm. Siteu sama doom la te seeni supporter dañ may seetaan mhm. seeni xarit di ma seetaan te ñëpp bëgg ma naw ma di xaar sama parole ci li ma mhm. leen di conseil kon du sama cër may wax diw mooy daan diw mee di am daf may xeeb te man bëgguma ku ma xeeb samay doom la mais gis nga daal combat bi moom dina am dina dina dina dina dina dina dina am ci ñoom rek bëri na am mais maanaam euh, bëri na am ci ci bëri bëri dina am bëri dina am mais nu ñu bëri ak discipline bu ñu bu ñu yàq làmb. lu bëri xeex xeex dina am naaj ah! naa la du ma wax lu ñaaw. dara dina bari wax ëpp naa la. dañu sarax sarax rek. dara dina bari dañu kenn jekk ba tax ne nga denc guux bu yàgg indaale ko nan ko bëri bëri tay bu mu indi bu mu indi bu mu bu mu indi noonu bu mu indi bu mu indi revanche bu mu ànki mhm. dal rek xam nga fan yi nag di ñëw sama doom ji day waaj a bëri ñang baalo ah, waaw ñang maa yaayam sama rakk la bokk yaay ah. waaw ñu mhm. fi ne man football yi bëri sama boy yi war a def finale yi na réew mi am jàmm mhm. ñu laa jël coupe du monde nag. ñu ngi dem dañ ñëwaat incha allah. coupe du monde après dañ ñëwaat yaa ngi xam. <laughs> waaw sénégalais di ñaan rek bëgg góor ma bëgg bëgg gi ma leen ko bëgg a. surtout tey dama bëgg fekk. Euh, mooy tëjee yi. waaw ndax man maa leen gën a bëgg. barke yonent yàlla mu xam. commentaire yi vraiment damay maa leen gën bëgg maa ngi yëg commentaire yi. waaye na ngeen xam ne lépp loolu ñu yëg ci seen xol. Mhm. li mu yëg ci sama xol ci seen jëmm yi moo ko raw. Mhm. damaa bëgg Sénégalais yi. damaa bëgg ñi seen doom laa. ñi seen sœur laa. Mhm. man aw rakk. te amatuma waajur wu jigéen amatuma waajur wu góor. mag bu jigéen laa mag bu góor ay mag yu bëgg ngeen ñaanal ma sama fan gudd ngeen yàgg fi yéen ñu ñuy ngeen ñaanal ma yàlla muccal ma ba du ma wax luñ ma xeebe surtout loolu waaw di nuyu Selbé sama mag ndeysaan waaw yaay foofu laa ñëw rek gis nañ barki démb macha allah bi ngeen fekkante Asia Touré mosuñu gisee ñaar mais gis na da nga jóg saafoonte ak moom dem fekk ko nuyu ko yaay booy mu loo xam ne Sénégal yëpp a koy rafetlu waaw duñu ay noonu ay noonu du naay noonu ñun ñëpp defar Sénégal moo ñu tax a jóg ku dul moom sax su ma ko gisoon. non xam nga tey sama mag la ndax bu dee ay at yu bari moo ma ko màggee. sama jabar la ko man bi may nekk xale moom presque sama sama mag la. lu mhm. tax moo tax nga jóg déranger. su ma ko gisee dama war a saafoon du ñu mhm. ay noonu. du ñu ay noonu. waaw man xam naa ne ci xolam. nangul na ma ne jàmbaar la ah, te ma it nangul naa ko ne ko jàmbaar la mhm. te man xam naa mbëggeelam ci man mhm. ndax bi may témoin mhm. ak di ma waxal lu baax booba man xam na ma parce que moo ma yar mais xam nga màgg bi dafa dafa dafa a gaaw macha allah la xam nga tamit moom bañ ne ba danaan borom xool bi gerte man bi ma amee huit ans laa commencé seet parce que dama judd rek yàlla nattuma ci lii lii mooy sama nattu àdduna ci la petit ci la grand ci la bëgg a nekk mère ba grand mère mais ci jàmm ba pare Selbe yéen am ku ngeen bokk ñu Wally Ballago Seck dafa bëgg Wally trop. waaw. ndax yéen ñaar nee naa la Wally yaay yi dañuy bari. te yaa Selbe gën a yéen a gën a fës. non yaay yi ku ko wax ak ku ko waxul. Mhm. Wally ñëpp ay yaayam la. a ko bëgg ñëpp a koy ñaanal na xol ñun ay jullit la. Mhm, mhm. te xol boo gis xanaa ñàkk a nangu waaye lu waay wax wax wax nangul na ko ne doom ju baax la te am na waajur bu baax. wala doo ko xool di ko bañ. comme soxna Aida man ñëpp a yaay booy ci tuuti rek.